comme ni nga ko waxee euh, jàpp nañ ma ma dem fa. Mhm. dund fa. Mhm. donte ne nag dundin du benn ndax xam naa ne moom nabulay dina corvée. waaw dina corvé après dinaa la ñëwal ci euh, lan mooy corvée bu fekkee ni amul beneen feebar ci yaramam parce que man ba ma demee kaso corvée wu ma. Mhm. dama dañ ma dañ ma dindi woon ci ñuy corvée parce que ak. Euh, fi ma tolloon ëmb beeg yooyu mënu mënuma woon yenn yi daal moo tax daaw moon corvée mais dinañ ci ñëw ci mhm. corvée beeg mhm. yeneen yeneen yeneen ci biir waxtaan wi absolument mais ko par exemple ni nga ko waxee si euh, buñ lay mandat de dépôt buñ lay mandat de dépôt yaakaar naa ñëpp duñu yem parce que dossier du benn waaw ay dossier la yoo xam ne yu uute la mhm. man bi ñu may jàpp ba di ma defeere métti na méttiwul mais kat dans ma conscience ci sama xel man jàppoon naa ne ñii dañ may defeere mm-hmm. man moom bi ñu ma ñëwee jël si rek ma gis act bi ni ñu ko defee amuñu benn benn benn kii pour may ma sax ma nooyi mm-hmm. policiers yi ñëw quatre policiers yi ñëw ci benn doomu aadama kese benn jigéenu wérul quatre policiers nga xëy xëy gis leen ci sa kër fajar teel ñu xam nga ne bu ñu la jàppee yóbbu la yóbbuñ la pour yóbbu la yàquñu seen essence. Mm-hmm. ñëw ba sa kër Mhm. pour yóbbu la dañ may yóbbu pour pour pour yóbbu ma kaso. donc man foofu noonu rek laa commencé defar samay bagage wax sama borom kër donte ne ak ñoom mënuñu woon a nangu. Mhm. ci laa commencé ne ñii xam naa dañ may yóbbu kaso. Mhm. donc euh, bi ma ñëwee tam. ñu def ma yóbbu ma euh, seen kii ñuy yóbbuwaate euh, yóbbu ma. fii delloo ma police centrale lañ ma delloo non police plateau man lañ ma lañ ñu yóbbu mhm. man nag yàlla def na ni eh, police plateau jotumaa dugg mhm. parce que bi ñëwee ba ci police bi foofu daal la inconsciente dama dama après dama xamatu ma daal mhm. ci laa yeewu jee euh, euh, fee hôpital hôpital principal ma am retour de parquet deuxième troisième jour wala quatrième jour bi ci biñ ma jàppee ci lañ ma soog a mandat dépôt mais c'était brusque waaw ndax ya nekk na loo xam ne préparer naa ko mais sama avocat mi ngi toog benn avocat kese moom moom fa nekkoon mhm. instant bi ñu may mandat dépôt daw si na ñëw muy maître Abdinaan Ndiaye koy gërëm ba tey mhm. daw si na ñëw mais bi mu ñëwee damaa toog euh, euh, kii bi ci boppam juge bi ci boppam sanctionné sama avocat mhm. ñu sanctionné ko parce que sama avocat bi mu ñëwee fekk ma euh, cybercriminalité ñu wool ñu indi ma daf ne lan moo tax ñu may indi parce que jigéenu wéru ba toll nii li loi wax ci lii mhm. di ko expliquer mhm. policiers yi nekk fa di jàppanteek moom ci loolu rek man ma toog en tant que détenu mhm. ci instant boobu noonu yóbbu ma ci cas ma jàkkaarloog juge bi juge bi ñëw sanctionné sama avocat ça veut dire que kon man moom saful wax bu doon bu doon ak dee la dama naan man damay dee weet d'accord waaw donc ci saa si la juge bi toog xool ma nii ma xool ko ci ay bët mu ne ma lii ak lii ak lii ak lañ lay toppee may nangoo ko bañ mu ne mandat de dépôt. tapé tapé. jeex na dem. après sama sama sama euh, kii ni ma jàpp ne noonu la euh, kii dundee mbir mi. nabu lay dundee mbir mi man noonu laa ko dundee. mandat de dépôt sama euh, avocat jël xool. Mhm. liir ma liir mu liir mhm. mënuñu ci dara. Mhm. alors que boobu sax man jàpp naa ne jaay doole la. mais seen i cas c' est niroo c' est un gis nañ man maa ngi woon tribunal bu Guédiawaye Pikine bi leen mandat de dépôt foofu leen jógee def ci fourgon bi normalement seen i kaso la ñu war a dem tey boo buñ la mandat de dépôt de manière générale def bi indi la ci fii gis nañ information yi fës bañ ko indee dafa amoon njàqare toog ci ruqam bu bees ci yow ñi tax dem ko ni mbaa du def wala lu ni mel tey bu la indee lan mooy lan mooy procédure bi ni ngay dugg ci kaso bi ak premier jour bi ni muy demee. lu doy waar lu doy waar waar foofu mooy kaso foofu nag euh, moo tax ñu naan kaso xam naa ni ñoom esprit kaso ñoom premier jour bi moo tax ñu koy wax sa dugg kaso parce que gis na bu ñu la mandat de dépôt euh, dangay mel ni ku ñu simmi dañuy mel ni ku ñu rocc seroom xaw ma olof yi dégg ko sero siru siru wala siru xaw ma siru xaw ma seru nekk waaw lii nekk ci nit dañuy mel ni ci nguur lay nekk waaw siru nguur maanaam day waaw dañ lay mel lu ñu lu ñu lu ñu rocc. maanaam dootoo doonati daar parce que di nga oyof benn oyof tànge boo xam ne. Mhm. Euh, yow dangay ngay suur te te da xiif. Mhm. da ngay mer te. gisoo luñ la lu la parce que wax jiñ lay wax kenn dóoru la kenn mais da ngay mer ci sa waxi lan. dañ naan la mandat dépôt. Mhm. buñ la nee mandat dépôt ba tappel la ko. nga xam ne yow mii tey sa guddi kaso léegi na sa xel dara dootu ci nekk lu dul gis. fa ngay fekki. waaw man book man. Hmm. dama doon profité pour xool mbedd mi. dama doon profité pour di xool mbedd mi. man li ma dal tam metti hmm. parce que biñ ma mandat dépôt ma jógee euh, tribunal di ñëw damaa hmm. romb sama kër. d'accord fiñ ma jaarale. damaa romb sama kër xalaat sama doom. bu ndaw bi nekk ci biir kër gi. ñu rombal ma nii sama kër. may dem mais sama xel lépp li ci nekk mooy naa gaawoon xool sama mag yi xool sama jëkkër xool lii xool laa parce que dama jàpp ne kaso. soo xasee ba dugg dootoo gis kenn donte ne heure boobu doo xalaat ay visite ay lii non non non non doo xalaat. Mm. léegi nag lan moo lan ngay xalaat mooy lan lay fekk ci kaso bi kaso bi nan la mel nan la bindoo lan moo fa war a am yaa ngi xalaat yaa ngi xalaat jamono jooju. en général lu ci bari bari bari bari ñi ñuy mandat dépôt parce que man du man rek lañ boole la ñu mandat dépôt woon am na ci ñoo xam ne dañ leen mandat dépôt ci sama ci ci ci ci groupe bi ma bokkoon ak ñi nga xam ne dañ leen mandat dépôt ci jour boobu ñu àndandoo ci fourgonnette bi du ñu yóbbu wallaahi azim maa ngi ci biir fourgonnette bi affaire bi naan vëpp vëpp vëpp oto bi ah, di di yéeg ay ay ay doodaan mm-hmm. di dugg ay kàmb di def lu ne xam nga yooyu rek te dañ dañ yàgg mm-hmm. gis nga mm-hmm. yombul dégg naa am na benn anecdote bu ma dégg ci biir kaso que dafa am euh, ñu ñu mandat dépôt woon euh, chef yi comme dafa am ñaar ñuy toog ci ci biti. Mhm. ci oto bi. Mhm. ñun ñu nekk ci biir. Mhm. détenu nekk ci biir. kii dawal day dawal ba réer biir dakaar diggante tribunal bu dakaar ak fii nga réer parce que am na ci ñoo xam ne du yombu daal. parce que du ñu nitu neen. d'accord ah ba tax na am am ci jour boo xam ne oto bi dafa réer. mais gis man jour bi may wax. xaw ma oto bi réer xaw ma réeru ndax man seetlu ma lool mais xam naa ne moom mandat de dépôt man 18 heures. fekk nañ génn nañ ñu. Euh, Euh, fële euh, génne nañu euh, kii. central la wala. non biir tribunal. di ñu indi mais man dama jàpp ne sa oto bi réeroon na ci yoon bi. Mm-hmm. parce que vingt et une heures. imaginez bi ñuy dugg ci kaso bi xawoon naa lëndëm. Mm-hmm. te ku ne xam na ni 16 heures le juge di wàcc juge bala ñuy wàcc dinañ la mandat dépôt. Mm-hmm. mais affaire bi yàggaat nañ fa yàgg-yàgg amit nag Euh, détenu yi nga xam ne yu góor yi fa bari woon bari woon mhm. ñu leen doon euh, yóbbuwaat ñii ñu leen doon yóbbu euh, di leen defeere ji ñii aussi ñu leen doon defal ay retour de parquet loolu tam taxoon na mu yàgg ba pare jigéen ñi lañu mujjee génne mais xam naa ne moom ñun moom fa la ñu nekk vingt une heures lañ ñëw ci kaso bi alors boo doon boo ma doon boo ma doon canaliser tey boo xoola bi bi bi oto bi di baajee di di def noonu mhm. barke alxuraan laa la wax sama biir bi sama doom ji mi ngi baajee di def nii te yëguma ko d'accord yëguma ko ndax am na leneen beneen lu tegu sama kaw. muy mandat de dépôt boobu. alors Thioro tey premier pas yi nga fulee biir prison par rapport boo ko comparé ak kaw Nabou Leye parce que bëgg nañ xam lu leer que bon ñu bari demuñu kaso ko yàlla kenn kum nekkul na trop tey boo nee sa tànk mooy porte porte mu ndaw boobu boo fa ne surux dugg noonu bi ne camp pénal boobu noonu lan mooy nekk procédure bi lan mooy am par rapport ak ñi ngay fekk si. soo ñëwee doo dugg ci port bu ndaw bi. fooy jaar. ci porte bu mag bi ngay jaar. mooy fi oto bi arrière noonu. oto bi su arrière. comme dañuy soog a ñëw dañuy arrière ba sës. wàcce ñu. gis nga foofu da ngay profiter di yëndu li mais sañoo ko. boo yëndoo bañ ne la hee. mënoote wala pas mënoote. non pas mënoote. man moom li ma nekk yëpp mënoote wuñ ma. wax dëgg fa yàlla. alors mënoote wuñ ma benn yoon ma wàcc. Mhm. mais difficilement. parce que oto bi ni mu kawee man ak sama ëmb ma wàcc ñi ci des ñëpp wàcc ñu jàppoo ma yeneen détenu ñoo ma jàppoo ma wàcc. Mhm. di yëngu pour suñu waa kër pour man suñu ci buntu kii bi laa leen fekk te xam naa ne man ni ma ko dundee noonu la ko Nabou lay dundee. Mhm. si je me trompe pas. Mhm. ma yaakaar ne suñu waa kër dama leen fekk ci buntu bi ñu indi ma lekk. Mhm. ak lu ma sangook yooyu. ak ay yére yu ma sol parce que yoru moon dara. lu dul de non nañ ma lu ma lekk. yoroon naa lu ma lekk parce que boobu maa ngi koy yor ci ci biir euh, tribunal bi lañ ma indil loolu ma lekk. ak euh, euh, yére yi ma yoroon ma ko doon deganaayoo. dara la ak yooyu pour ma sàngoo woon ko ci hôpital Barake la ak yooyu donc loolu ma ëmb lépp daal di ñëw taxaw ñu jël ma samay bagage détenu yi ma àndal ñu jël ma jël parce que attenu ma woon bagage yi mënu moon yor dara mhm. solu ma daal la mhm. man ci ci ci cybercriminalité bi sama euh, euh, sama avocat di ak policier yi day demam du dem sama avocat ne leen di tegoo leen ko ci dëgg tegoo leen ko ci yoon foofu la ñu la samay daal réeree. d'accord pour te dire pendant quatre jours yooyu yëpp bi ñu may defeere tànku neen laa def. Mhm. donc ma wàcc biir camp dox ak sama tànk ñu ne ñu ne ñu ne nañu def ñu def franc. Mhm. ñu def ba egg ba ci biir lépp yaa ngi yëndu yaa ngi xool mais boo eggee ba ci biir nag foofu nag mooy kaso. Mhm. foofu ngay duggee. daanaka danga naan maara day taali maa subaana laa doo xam sax. da nga mel ni ku ñu ubbi benn teen rek ne la ci cabax. ñu dugal ci néeg bu ndaw. néeg ndaw mooy lan da nga fa fekk nit wala doo fekk nit. ankay da fay fekk ay garde ay ay ay femme de tenu ñoo xam ne dañu sol tenue taxaw comme yow. Hmm. ay nit comme yow nga fay fekk deux personnes. Hmm. ñuy dugal par deux personnes di leen fouiller. di leen fouiller yow yow yow yow nit ki en personne yow yaay njëkk a dugg. nga dugg ci biir kaso bi. ñu dugal la ci euh, pantre boobu as néeg ndaw la boo tëddee nii sa tànk yi day génn ci biti. Hmm? waaw soo tëddee fii sa tànk yi day génn ci biti. léegi nag ngeen di taxaw yéen deux personnes man kiñ ma dugalandoo sax xamatuma kan la le confort mais coro le confort am nay mat la bàyyi ba nga dugg ba pare foofu noonu mm. néeg bu ndaw boobu du néeg bu ndaw boobu ngay dugg pour toog de ah <laughs> yow neexle néeg bu ndaw duggoo pour toog de néeg da ngay ñëw dugg pour ñu fuye la dañ lay simmi ba nga set da ngay simmi dañ lay simmi ba nga set comme ni la sa ndey juree woon ah ñu daal di ne def lu ay geste parce que say nopp sa bopp boo yoree ay létt sa fépp la ñuy xool ba xam yoraale woo dara. jigéen quand jigéen ñoo lay ah, xool waaw ah, ah, ça c'est normal ñoo lay xool mais xam nga ne loolu loolu. loolu dañuy rek. xaawi sutura la nag xaawi sutura la. absolument mën nañ ko loolu mën nañ ko def ci beneen façon beneen anam. Mhm. loolu war nañu teg ay machines yoo xam ne nit ki su ñëwee. Mhm. comme ni ñuy def ci buntu tribunal ak yeneen. soo jàllee bu dara ne pimpem ñu xam ne am na lu nekk ci yow. ñu ñu def ko fa mais moo gën ñu simmeeku loola ba nga set. say morom. ñoo xam ne yaa leen mag sax. yaa leen des fois ñoo ñoo xam ne yaa leen mag. ñoo lay simmeekuloo. Mm-hmm. ba nga set man foofu bi may dugg bi ñu ma defee noonu dama ne fii kon mère amu fi. Mm-hmm. dama ne mag amu fi mag amu fi man ku mm-hmm. ma mag amu fi. xëy na man ñu ma ñu ma ñu ma gën a ne xale rek ñoo fi am loolu laa doon wax sama xel. parce que ni ñu ma def non sama sag gi sama sutura. def ma noo xam ne xoolal dañ lay multiplier ba nga toll ni pepp. après étape boobu. après boobu ñu génne la. suñ la génnee nag daal lay daal lay laaj say bagage man heureusement bi may dugg comme man tàmm ma tout le temps di takk ay bijoux takk ay bijoux amul bijoux bi ñu ma yóbbu. Mhm. Euh, euh, ci greffe pour ma bàyyi ko fa du téléphone du dara ñi ko indaale na dañ ñuy jël seen bos. Mhm. mais man moom comme dañ ma fekk sama kër may soo a yeewu ñu jël yóbbu ci ko ëmb yóbbaale ma woon presque dara mais euh, bool yi ma yóbbu woon ñu defal ma ci lekk lekk bi bi ñu ko indee ci cave ba ci tribunal ba dama ne lekk yi naa ko Euh, après su ma demee ma lekk ko parce que kaaf bi nit ñi dañu dañu tuur ndox tuur ndox ba affaire bi xeeñ kenn mënatu faa toog donc foofu pour nga lekk fa problème la ma yaxanal sama sama sama lekk gi supp la ak fonde ma koy yaxanal pour su ma duggee ci biir maf daa di koy lekk ma egsi ñu daan ne ma ibil boole bañ ma xoolee ba pare fekk boobu bi ñu ma xoolee sama yaram bi nee na yàpp sama yaram bi yëpp simmeeku xamatuma lan la ma àdduna di nurool bëgguma lu dul dee hmm. wallaahi al azim ñu daan ne ma kaay yaa moom bagage yi ma ne waa ñu ne ma tekki ma tekki ñu yëlëb morso bi xool da morso bi amul dara ñu daal ne ma ibbil bool yi ma ibbi bool bi mu nekk supp ñoom ñu xoolante ni lii supp la supp la la dugal seen kii dugal xool ñu ne supp dugg sama yasaar mi gënati te ba maa ngi xiif xiif xiif ba mënuma la koo wax kon ma nii supp dugg ci kaso bi supp du dugg de ak fonde yëpp du dugg te man fonde ak supp laa fa andi karaaf beneen karaaf bi fonde la def mhm. ñu daal di ibbi karaaf bi tam gis muy fonde ñu ne ma fonde tam du dugg. Ah, kon lan la muy dugg ah, gis nga sama jaaxle googu ma indaale. ak ak ni ñu ma def. def ma noo xam ne c'est inhumain loo xam ne nii man xalaat naa ne lii nit waru koo def nit moroomu nitam. ñu tegal ma ci ne ma lekk yi mënta dugg. alors après tout ça Thioro dañ koy këpp dañ koy këpp. ci saa si. loo xam ne peut dem këppi bool yooyu noonu ak karaaf boobu. foofu la réeree ba léegi gisuma ko.